أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا حكمة فيه اهدري لنا بهذا المهدر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بزفر ولا قول ولا قوة إلا بالله salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu leen di nuyu di leen ziar bu baax ci bis bi teg ci guddi aljuma bi fas yéene eggali baabu fi mawlidihi asharif sallallahu alayhi wa sallam di bunt bi ngi wax ci juddóob juddoom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne moom mooy ku sell ki sharif bu mag bi ku tedd ki ci nuurul bashar jaaha attalq wa hiya fi daari fardan fa ataa alxuura ba'tatan bittawaali sallallahu alayhi wa sallam waatatha qawaabilun ummu isa summa aasiyatun atat linnaali wa atatha al amlaaku summa tadalla nuuru kulli nujuum lil mifdaali sallallahu alayhi wa sallam mu ne jaaha dikkal na ko moom ndey amina attalqu matwa waxiyate moom ba mu nekkee ci mat matwa di waaj a am doom muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii daari fardan nekkoon na fardan ab kenn ku wéet nekkoon na ku wéet fii daari ci kër ga bu mu nekkoon bi maanaam amul woon kenn ndax ñaareel jigéen suy matu rek toujours dina am mbokkam wala ku ko jege waaye moom kenn nekkuloon ak moom waaye nag yàlla daal di ko yabalal ay urul ay ni yoo xamante ne ci kaw asamaan lañ jóge moo tax mu ne fa ata al xuuru mu daal di dikkal ay xuurul ay ni baxtatan ci mbetteel bi tawaali ci toftalante ñu awante di ko jàppal nekk ci service am loolu di karaamu bu rëy wa atat xaa xawaabilun ba tey dikkal na ko xawaabilun jigéen yooyu nga xamante ne ñooy jigéen yi rewle xawaabil mooy sage-femme ci français sage-femme yooyu noonu nag ñëw di assister juddëb yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndey Amina mu ne umu isa ca la bokk mooy Mariama summa asiyatul ak asiya bi ngeen di dégg buy firawna moom ci jigéen yu baax yi la bokkoon ak mariama ba mariama banati imran allati comme ni ko alxuraan waxee ak ñooñu ci jigéen yu mag yi lan bokk ginnaaw loolu nag ay ñoon xadija ay aminatu mii mii di mii di jur ak ay xadija fatimat ak yooyu suma asiyatu topp asiya tamit dikk na bokk ci sage-femme ya atat linnaali ñoom it ñëpp ñëw nañ ngir ñoom it am ab may ngir am ay may ngir barkelu ngir xidma ci judd yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mu neen ay karaama ci keroog bu muy wàcc ci kaw suuf moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ba tey yemul ci loolu de wa atat xal amlaaku dikkal na ko it ba tey ay malaayika summa tadalla nuuru kulli nujuumi lil mifdaali summa tadalla topp mu daldi mu mu topp yoru na wala daal benn wala njatt na bi maanaa nuuru leer yi nga xamante ne jóge na ci bépp biddéew ci kaw asamaan bépp biddéew buy leeral rek kullu nujumi buy leeral rek lee sa leer keroog yaa ngi ko jat yaa ngi ko orienté mu jëm lil mifdaali ci aji gënaa koon bi ci ki nga xamante ne moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wada at fii daari ibni yusufa aw bi radmi wa sha'bi qawlu julli rijaali mu ne wada at mu ne sippi na ko fii daari ibnu yusuf ci ibnu yusuf daari ibnu yusuf mu ne foofu la juddoo moom yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaaro ibnu yusuf nag ci magu màkka yi la bokk mu ne aw bi radmi wala fi ñuy wax radmu place la wa cheikh bi wala ci cheikh bi mooy xuru abi taalib mu ne nag xuru abi taalib boobu noonu noonu ñuy wax cheikh bi abi taalib mu ne xawlu julli rijaali moom mooy wax lu ëpp ci góor yi góor góor yàlla yi mooy ulama siira yiy nettali ñu ci ëpp daal lii lañu wax nee nañ ca xuru abi taalib la juddoo sallallahu alayhi wa sallam mu ne nuuru shamsi tabazaxat inna shamsal mustafa sha'sha'at zalaama dalaali nuuru shamsi leerab jant bi jant bi mooy kan kan lañu dàkkantelee jant bi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeram dafa mel ni jant mu ne leerab jant bi moom fenk na tabazaxat fenk na inna shamsal mustafa naka jantab yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu wooyee ko mustafa ki ñu tànn ci alamul arwaax balaa ñu koy tànn ci asba mu ne sha'sha'at soril na lan la soril zalaama dalaali lëndëmab réer yi mu ne marhaban bi rabii fiihi ataana al mustafa al xalqi wa huwa xatmu risaali marhaban dina ma ndokkeel dina ma tatagal bi rabii ci weer fii bi nga xamante ne ataana dikkal nañu kan la mustafa al xalqi ki nga xamante moom la yàlla tànn ci mbindeef yi waxuwateen moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moomu xatmu risaale yi moom moo kaste risaala bi mooy yonent gi jaa azal murtada bi tarfi kaxiilin bi inaayaati rabbina almutaali jaa zal murtada dikk ne kii dikk ñu gërëm moo yonent saa sam bokk na ci ay turam murtada dikk ñu ay gërëm ki ñu gërëm bi tarfin kaxiilin ak ay gët yoo xamante ne dañ ko tusngal muy karaama bët gët yoo xamante ne ay bët yoo xam ne dañ koo tusngal bi inaayati te loolu lépp nekk nag ci ndimbalab yàlla rabbina si suñu borom almutaali bi nga am moom mooy ki kawe loolu yàlla mi kawe rek moo ko mën a dimbalee jaamam te loolu yonent bi rek la ko defal sallallahu alayhi wa sallam wa huwa maqtuu surratin wa huwa maxtuunun dahiinun akrim bi zeyni rijaali wa huwa te moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam maqtuu suratin nekk na ku ñu dog aji ak ab lut luttu bi maanaam mooy ay kii mooy jumba xam dañ ko dagg naturellement wa huwa maxtuunun te it yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nekk na ku ñu dugal néegu góor ba mu wér pour suturaal baat bi xam ngeen li ma bëgg a wax koo xamante ne dugal nañ ko néegu góor ba mu wér sallallahu alayhi wa sallam moom noonu la juddoo mu ne dahiinu nekk ku ñu diw liir su juddoo ba ñu toilette ko dañ koy diw ba mu rafet wala ñu parfumer ko genre yooyu akrim mu ne na nga yéem ab ab yéem bi zeyni rijaali ci ki nga xamante ne mooy taarab góor yàlla yi waaw bi maanaa daal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taarab góor yàlla yi nag comme mooy taarab góor yàlla yi kon moo war a gën a rafet lépp waaw moo war a dàq lépp ci lépp fatabaddat anwaaruhu wa anaarat ufqa busra lahum fayaalal jamaali fatabaddat topp feeñ na anwaaruhu ay leeram wa anaarat leeral na ufqa mooy wàllu wala boog place ya ya nekk ca busra wàllu busra leeral na foofu yépp ba foofu lahum ñeel leen fa yaalal jamaali mu ne yéem naa lal jamaali mbile taar yem naa taarab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne ci ñëwam rek la yàlla leeralee fo zone zone yooyu noonu yëpp bokkate ruum xam nga ne kooku kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne zeynar xamalatuhul amlaaku naxwa jinaanin wa bixaarin wa baadaru fil xaali xamalatuhu topp fop nañ ko wala bokk yenu nañ ko kan moo ko yenu ñan ñoo ko yenu ay malaaka mooy malaaka yi jëm jëmee ko naxwa naxwa naxwa jinaani ci côté aljana wa bixaarin ak ci géej yi bi maanaam wërale nañ ko aljana wërale nañ ko suñu nee géej yi mooy àdduna bi yëpp daal wërale nañ ko fépp fuy place rek ngir mu barkeeloo ci place yooyu par place yooyu sax loolu moo leen di dundal yonent boobu sallallahu alayhi wasallam lan soxla ñoom ñëpp ñu barkeelu ci comme ñoon mënuñoo bouger mu ne wa baadaru waaye malaaka yi ban ko yenoo wërale ko àdduna ak ak ak aljana ak fu ne gaawantu nañ nag fil xaari indiwaat ko ci xaal ci état bi mu nekkoon ci judd bi indi ko ci taxawaay ci lu gaaw loolu ci karaama yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokk ak ci ay teraangam ba muy nekk liir kon tour du monde moom dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk a def sallallahu alayhi wasallam ndax mooy borom kawnu gi moom la ko yàlla terale mu ne fatabaddat anwaaruhu wa anaarat ufqa busara lahum fayaalal jamaali mu ne wata watadaa al iwaanu summa tawaalat fiihi bushra fal kufru baadi insifaali watadaa te fett na mooy fissuré na al iwaanu pale kisra ba samma foofe ta summa summa tawaalat topp nag mu daal di toftale mu daal di tegaloo fii ci foofu bushra mooy mbégte ya fal kufru fekk kéefër baat yi aji feeñ la infisaal yi ci suufe ci gotteeku waaw ba xabaar yi mbégte yi ñëwee moom yéen saa salaam juddu kéefër daal ci la commencé di reculer di reculer di reculer di daanu di daanu ba deseetul dara kéefër moom ci la gotteeku te ba yow yow mal xiyaam day suufe ndax tànk leeru yonent baa ngi fi sallallahu alayhi wa sallam mu ne rajama rajmu sama kulla rajimin xaala marqaawu yaa lahu min kamaali mu ne rajama jam na arajmu biddéew yi sama foofe kulli rajimin bépp seytaane bu am jam nañ ko xaala marqaawu ci waxtu bi nga xamante ne mu ngi yéeg mooy waxtu yi nga xamante ne jinne yi dañ daan yéeg naan dañuy déglu ci xabaaru asamaan mu ne képp ku yéeg rek ñu jam la ci la ba ci la koy wax sax wajinnahum fii nakadin jinne yëpp nekk nañ ci jafe-jafe ci difficulté lii ramiha bi rasadin ci sandi bi leen di sandi ay jumu safara wa asliha an maqadin ak folle seen ñu folli bi leen di folli am an maqadin wali seen place ñu daan toog li li ajli xayri rasuli ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën mu ne yaalahu yéem na ab yéem wala boog kawteef waaw kawteef min kamaali ci matab mayam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéem na daal ñeyal ko ci matab ci matam moom yonent sallallahu alayhi wasallam naaru fursin anxaaruhum fi xumuudin wan qitaa il uyuuni an taxmaali naaru fursin te safaraay waa faris anxaaruhum ak seen dex yi fii xumuudi nekk na ci fendi wa inqitaa il uyuni an taxmaale it seen dogop seen sew na yi tamit daw bi mu doon daw dog na taxaw na an taxmaale ci dotteeku keroog ba yoon saasam juddoo daal ñoom ñëpp seen géej yi fend na sew nda yeeg ruisseau yi yëpp dotteek yu ñu daan dotteekoo di kuleeg yëpp ca la arrêté mu ne fursu fursin mu ne lali nguuru farisi nag asnaamuhum ak seen xërëm ya fii jufuulin nekk nañ aji fooñ wala bokk aji góor bi maanaa daal bañ nañ daal lal yi daal day daal di damm rek keroog lañ bañ daal ñu ñu ñu tëdd ci ci seen kaw won ji daali yaaru bu ayda bu ayda in ji daali won ji daali mu nekk ak nërmelu nag boo xamante ne yaaru dina topp dina gaar bu ay dal inji daal yi ci ginnaaw nërmeelu nërmeelu daal ci ginnaaw nërmeelu suñ ko defaree ba foog ne mën nañ ci tëddaal rek lali gotteeg daanooti lali daal keroog fooñ nañ bañ nañ benn buur mënatul tëdd ci lalam keroog ba yonent sallallahu alayhi wasallam juddoo lu muy tegtale ne nelaw ak leesu yëpp jeex na dem rek wuy ji ko moo des ak waajal sallallahu alayhi wa sallam mu ne mawlidun xayaral uquula bihi al arxaasa lil mustafa al jazili an nawaali mawlidun muy judd joo xamante ne nag juddab waajoo waa ji nga xamante ne waajoo xamante ne juddam jooju xayyara gëlëmal na al uquula bihi bi maanaa xel yi bihi ci juddom ba al arxaasa am na ay ay ay ay ay tegtal ay màndarga wala bokk ay fondement yoo xamante ne lil Mustapha ñeel na Mustapha amee nañ ci daal ay tegtal wala ay fondement yoo xamante ne lil Mustapha ñeel na Mustapha aljazili nawaali neen naka moom Moustapha kat mooy yonent bi nga xam ne mooy aji bëri ji ay may waaw tegtal yi wane yëpp ne kii daal moo bëri may te bëri ji may nara feeñali may bu ne tegtal yooyu yëpp feeñ na fond lépp luy dëgëral ngëm-ngëm boobu leer na keroog sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne marhaban kulli marhabin bil muxaffa marxaban bil jawdi saxil mixtaali sallallahu alayhi wa sallam wahani an aydan li binti li wahbin an jabat bil xitaami saafil zulaali sabaqat fil faxaari kulla fataatin an jabat bi durril yatiimil xaali sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne nag kon marhaban dina ma tatagal kulli marxabin bépp tatagal bil mu xafaa ci ki ñuy xencu ay mbiram mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xamante ni képp ku bëgg a baax di nga xencu mbiram mu ne maa ngi tatagal kooku bépp tatagal mu ne marxaban dina ma tatagal ab tatagal bil jawdi ci niir nuage boo xamante ne saaxi bi ay boo xamante ne aji tabe tabe la bi bi bi bil jaw di saxi as saxi as saxi boo xamante ne aji tabe la almixtaali boo xamante ne aji dotti xaakoon la waaw boo xamante ne daal niir bi nga xamante ne mooy badi dotti xaakoon bi nga xamante ne daal fees na képp ak ndox niir boo xamante ne daal am na ndox tabe na ci maye ndoxam dina ma ndokkeel kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ koy misaale sallallahu alayhi wasallam waxani an te it dina ma ndokkeel ab ndokkeel ba tey aydan ba tey li bint li wax bin ci doomu wahab boobu noonu nga xamante ne keroog ci yi passé maa ngi leen koy firil ne wax bi sax dafa nduroog wahaabu kay aji may ne ndakate kon kenn juru ko yàlla daal mayaf yàlla daal lañ ko mën a firee moom yonent bi ci baatin waaye nag aminatu moomu mayaf yàlla la moom mooy doomu wax wax bi aminatu bintu wax bi papaam noonu la tuddoon wax wahaab mu ne an jabat mu ne jur na bil xitaami saafi zulaali ki nga xamante ne moom moo kaste saafi zulaali gën gën saa sell cosaan wala fi di ko woowee méngit ndoxam mooy ndox mi formé doomu aadama ki nga xamante ne ndoxam moo gën a sell ci ndox ndox yi sallallahu alayhi wa sallam kooku moo juddoo ci Amina Amina daal moo jur kooku ki nga xam ne kaste na yonent yi te moo gën a sell ab ndox waaw gën a sell cosaan sabaqat raw na sabaqat jiitu na kulla fa fataatin bépp jigéen fil faxaari ci puukare an jabat jur na kan la jur bi durril yetimi ki nga xam ñu ngi koy melale comme wurusu wurusu wurus ngalam wurus boog bu bi nga xamante ne wurus bu foor bi bi nga xamante ne wurus bu mucc la wurus la boo xamante ne amul ndend yetim suñ ko waxee mooy aji wéet boo xamante amul ndend doo gis mukk ku mel ni moom alxaali koo xamante ne ku njëgu la ku cher la daal kooku mooy yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam foofu la bàyyi jeexale kon allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih ma lakun khatim ma sabaq nasrak nak wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa qadari nazim وما ذلك لنا بعزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته